dinañ gëna mëna may jeunes yi jeune talent yi ñu mëna exprimer wu davantage sen talent yu nëbatu won dinañ ko mëna a génne. boo ñaari nak ñu mëna ko bolé dafa am lu nekk ci ginnaaw ndax euh, ku nekk collection né amna bénn benn bo xamanteni xamante bu grandiose la mu nekk ci ginnaaw donc liggéey bobu dañ ko yàgg togg dañoo dem sax ba dañ koy fowé ndax tellement ko dafa nekk ci ñun c'est inné c'est quelque chose qu'on respire c'est quelque chose boo xamante il vit dans nous c'est quelque chose de naturel daal ba tax na tey jii lu ñu de deux facettes wala triple facettes c'est normal et ça sera facile pour le faire et pour le réaliser Normalement moo waral tey deux facettes yi tey jii mun naa wax ni yomb na yombul mais nag liggéey bu acharné moo nekk si ginnaaw waa empreinte couture by Chérifa Nour mooy ñawal boppam mooy solal boppam sama atelier moo ngi nekk euh, biscuiterie villa numéro 15 28 en face de l'école de biscuiterie aussi. Comment vous vous bëggoon 77 683 96 03. comme nous ñu waxoon la première question bi rek initiative bi quoi foofu laay dellu kon ndax euh, ki euh, pour une première dans la commune et dans une commune nous sommes soxla ñu Roux, comme genre président Assoumane Diallo honorable donc avec tout le respect que j'ai lui droit, moom daf ñu jàppale daf ñu won yoon bi te daf ñuy teg si yoon bi saa su ne donc initiative bi nii dañ ko si sant di ko si gërëm bu baax a baax a baax parce que tamit am na lu muy dekkal am na lu muy jundal am na lu muy jariñ te ëllëg la xam résultat bi du léegi waaw monsieur le maire nag wax dëgg fa yàlla nit ki nga woote seen waa kër wuy si la say dëkkandoo wuy si la say mbokk wuy si la loolu dara dàq ko rawatina nag kiñ ñu wax ne moom moo la jëmmal si Sénégal muy monsieur honorable monsieur le maire kooku moom teewaayam dañ koy mënuñu ko mënuñu ko gëj di ko rafetlu ndax bu dul dara sax ku disponible la déjà dañ ko koy jëwee ki nga xamante ni woyof na ba soo ko rombee sax doo ko xàmmee bu la ñë boo wootee nag mu ñëw wuy si la dafa fekk ni loolu mbégte la lay jural mbégte la la bëgg a apporter te mbégte boobu sentir nañ ko yëg nañ ko te gëm naa ni moo ñu si ëppale. waaw par rapport ak appel bi tamit mun naa wax ni bu ñu nee acteur culturel.

te tamit euh, information bi xëy na nuñ koy déggee wute mais nag nit ki il faut prêt à tout ba lu lay fekk si rek lu ne nga mën ko préparer xam foo koy canaliser xam noo koy analyser ba mën a parce que tout problème a une solution waaw ah, tout problème a une solution donc naqare na si ñenn ñi métti na si ñenn ñi mais tamit gënoon na mën a neex nit ki di préparer boppam parce que gouverner c'est prévoir